place de l'obélisque jàpp bokon nga si ñi doon xex demb wala waaw. waaw bokon na ci ñi doon xex bokon na ci ñi nga xam le 23 juin 2011 tel nañu génn dem taxaw buntu assemblée nationale pour xex ben réforme bo xam dañu ko jàppoon comme recul de la démocratie tay n'ak 10 ans après ñukoy koy té te bu ngeen ñu gisé tay dañu ñëw suñu ak suñu écharpe té écharpe yi fay symboliser que le 23 juin dafa nek xexu peuple bi peuple bi doon xex pour le recul démocratique nek aussi le jour de la victoire de la démocratie loolu motax tay ñu ñew ak suñu écharpe pour delloo njukkal la démocratie li ñu doon xeex nag. jàpp nga ne démocratie amna ci si réew mi. waaw démocratie amna bu baax ci réew mi parce que bo gisee les pouvoirs yi nga xamné ne ñoo nekk les institutions yi fi nek dooleel nañ len lu melni assemblée nationale gis nañ depuis le référendum nous avons ñu ay pouvoir yu évaluation des politiques publiques évaluation et suivi des politiques publiques Nous avons aussi le président de l'Assemblée nationale qui ci participé sage nga siège ci conseil constitutionnel donc nous avons nekk ay réformes yu am aussi ci parti politique nous avons gis un parrainage bi nga dañ ko parti rek léegi dañ ko pour que ñëpp bokk euh, un même traitement c'est une démocratie jamono bi ñuy wax ay nervi yoo xamante ni ñoom ñoo doon attaquer ñu taxawoon di wane seeni eh, contestation seeni i mer ginnaaw tourné président de la république. wa man bu ñuy wax ay nervi daf may jaaxal parce que bu fekkante ne bu ñu recruter ay jeunes dañuy wax des ay de sécurité la bu ñu àndeek euh, euh, opposition bu ñu àndeek pouvoir ñu bëgg leen tuddee ay nervi man loolu daf may jaaxal donc man gisuma fenn ay nervi li ma gis c'est des jeunes engagés à défendre leur leader des jeunes engagés à défendre une idéologie des jeunes engagés à défendre ay affaires yoo xam ne moom la ñu gën man